Seydina Alioune Seck nekk doom rek ci Thione Ballago Seck ci fàttali rek Thione balaago Seck bi mu dëddoo àdduna ak léegi ci ñetti weer rek lay toll Seydina Alioune Seck moom nag di rakku ci wàlli Ballago Seck jamono ji rek ñu gis ne dafa amal jafe-jafe ak police bu Sénégal la ko waral rek nekku lenn lu dul benn faux jugement boo xam ne doon na ko def rek ci ay këyitam ngir rek judduwaat ci atum 1997 mu di benn jugement bu mu bëggoon ci extrait de naissance am la ko waral rek moo di yëggale rêve bi nga xamante ni rek mas na koo amee ngir rejoindre benn club football bu nekkee rek ca diwaanu Espagne waaye loole nag mujjee wut antu ndaxte ba muy defar rek passeport bi ah, ci la ñu vérifier rek gis ne rek dafa am ay erreur yu baree bari rek ca jugement ba ba tax rek ca la ko chambre correctionnelle bu tribunal de Dakar daal di koy dégloo nag ba fi mu nekk nii rek dina édifier ah, son sort niki le juin bi ñu ba sax rek juge ba daal dinay bëgg a teg ca ndoddam lu tolloog juróom benn weer rek ci ay kaso ci fàttali rek kii di Seydina Alioune Seck rek moom bébétam musul nekk lenn lu dul nekk footballeur bu mag ba tax rek moo ko jural li ni mel ndax moom 1993 la juddu pour rejoindre nag club boobu tax mu def benn jugement bëgg a judduwaat 1997 moom Seydina Alioune sekk nag jamono ji rek ci ay jafe-jafe la nekk ba six mois de prison nar na tege rek ci ci noddam ngir rek loolee nga xam ne def na ko mu di jugement